yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu bokk yëpp te di leen siyaare te ñaan Sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér tan ànd ak moom liggéey bi liggéey yëpp te di leen xamal ne lan sëñ bi daa sant def nañ ko mooy lan sëñ sant def def nañ ko mooy ñaari ko fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne dana yebal ci jumaa ji ñu yéene fi wax ne nañ séentu weer wi buñ ko defee bu buñ ko yéenee ba noppi dañuy génn ci soowu nag di taatam xibaar yi ci gox yi ak di séentu noonu ci suñu bi nu defee loolu nag ba génn ci soowu nag mbooloom mboolem mbooloo mi fi nekk ñëpp gis nañ weer wi waaye biñ gisee weer wi loolu léegi nag ñun ci ndigal rek la ñuy dox boole ca lay la daal di jokkoo kër sëñ Muntaxa mu joxe ndigal ci ne moo foofa it gis nañ ko fa bu baax a baax kon nag ñu xam ne suba <coughs> mooy benn fanu korite gi koor gi koor gi mën naa korite gi <laughs> ah. mm. <laughs> suba mooy benn fanu koor gi mm. ñu xam ne kon suba ci talaata ji mooy benn fanu koor gi waaw ah, ah, donc ñëpp xam kon nag noo ngi ñaan suñu mu yàgg lool taata ah, wér dafa am nag loo xam ne nag faaw danañ ko ci boole waale mm. moo di weer wi bu dafa bari woon ñu am na ñoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk wax ne mooy ñaar fukki fan ñi ak juróom mm. lu mel noonu nag dafa am lu muy yàq mm. ndax li nga xam ne sëñ bi dem nañ ci moom ba mu joxe ndigal ba wax ne nii lii la loola la koy soppi ca sëñ bi la war a jóge waat waaye wërta doon ci ku ne ci dëkk bi rek ne tey la nangam fan ci weer wi te loola bokku ci ndax loolu day indi ay ay lëj-lëj rek li li li li wóor daal mooy eh, eh, weer wi bañ koy séentu ca weer ca bëri yoon mboolem réewum yëpp daj na te gisuñ ko kenn ko ci gis kon nag loolee nu jàppoon mënut dem ba ca bés bu mujji ba muy soppi ko te diggaatuñ ca dara lu li lii nag du caagee ne lu ñu dégg rek loolu la ñuy jàpp mm-hmm. bu ñu gisee leneen lu gën a wér dañ cay jàpp mm-hmm. ndax sëñ Muntaxa jullee na ma ak moom fajar mm-hmm. ngir yëgal ko ne weer gisaat nañ weer te ne nañ ko woon weer feeñut mm-hmm. ne ko gisaat nañu gis ne weer feeñ na mm-hmm. mu ànd ca loola mm-hmm. julli nañ fii tisbaar ci suba kii gi ba noppi door a ne weer feeñ na te dem te dañoo dem ba gis lu wér lu wér waaye lii nag wérut waaw moo tax daal moom ginnaaw gisuñ ci lu wér nag mun deesu ca ànd te def gi lu mat di wattandiku la loolu rek lañ bëggoon cee dolli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant sëñ Abdou Diop ci kàddu yu rafet yi ak leeral gi fekk na loolu yi mu wax dëppoo na li nga xam ne moom la mu xaddamatul xidma daayira bi tàmbalee ca muharram di topp weer yi ba agsi ci weer wi jàpp démb ñu jàpp ko ñaar fukk ak juróom-ñett ci weer bi ndax ñoom te muharram lañ ko tàmbali woon léegi dama leen def sëñ leeral leen nañ ko daa doxale ak nañ koy doxale baax si ci tey jii ndax xëy na xëy na cëpp ne tey la ñaar fukk ak juróom-ñett ba tey la ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoom dañ ko tàmbalee ci muharram ba fi ñu luñ ci weesu leer na ci ñoom nañ ñu ko tey jii wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu yëkkati suñuy kàddu ci ndigalul suñu kilifa gi toog di sëriñ Mouhamadul bu Bousso mi nga xam ne mooy imaamu jumaa ju mag jii di Touba. te jiite itam commission bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi tànn ñuy séentu weer wi waxtu wu nekk. mu ànd ko ak imaam sëriñ Abdul Xadim Diop ak mboolem commission bi nga xam ne ñoom la ko àndal li mu sàkku ci noonu nag ñu leeral ko mooy weer wii ñu génn dafa bari coow lool ñii naan bi sangam la feeñ ñeneen bi sàngam la feeñ waaye li am solo mooy te bëgg ñëpp xam ko mooy weer wi at mépp la ko tàmbalee ci weeru muharram ba ñu egsi fii ak ya ko jiitu woon sax ci yeneen at ya ko jiitu ñaar fukk ak juróom-ñeent yu nekk danañu daje fii ci ndigalul sëriñ bi séntu weer wi danañu jokkoo it ak mboolem Sénégal gépp laaj ñëpp door a joxe kaddu ni ko sëriñ Abdou Khadim Diop waxee léegi bu ñu gisul nag fenn fii ci ci fii ci ñu koy séntoo gisuñu ko fenn kenn gisaluñu ko fenn ci réew mi lañuy ñuy xam la ñuy mën a jàpp mooy ne weer wi feeñut su boobaa bis ba ca bis bay dañuy jàpp fanweer bis ba ca toppaat lañuy jàpp seen ne mooy benn fan. loolu nag moo ñu dal ci weer wii jàll gisee su ko fi gisuñu ko itam fenn ci réew mi foo xam ne wax nañ ñu ne gis nañ ko bu loolu amee nag dee su mën a jàpp lu may lañ waxoon rek wa in xumma aleykum fa akmilu iddata sambani salaasina bu boobaa fanweer yi mën a jàpp rek loolu moo tax fanweer yooyu la jàppoon kon tey moo nekkoon ci li ñu jàpp ñaar fukk ak juróom-ñeent biñ ci egsee it weere feeñ na ñu gis ko mu leer nañ ci bëti nit ñi du caageenu nag ne bu ñu dégg bu ñu gisee xabaar boo xam ne nii bu wuute na ak li ñu gis fii tam doy ñu te teel a ñëw ca waxtu bu mu waree ñëw danañu ko soppi nañ ko war a soppee loolu ni ko sëñ Abdul Xadim jóob waxee léegi dal nañu fi dem nañu ba mu guddi lool ñu door ñoo wax ne feeñ na ci dëkk sàngam ci réew mi ñu topp ko ba mu wér jokkoog ña fa nekk ba xam ne feeñ na sëriñ Abdul Xadim Diop dem jullee ji fajar ci sëriñ ba leeral ko ko sëriñ bi nekkoon nañ jàpp nangam ñu xëy soppi lañ jàppoon toog nañu ba xëy ñu ne dëkk sàngam gisoon nañ ko ñu jokkoog ñooña mu leeral mu leer nañ ñu ne jiw sangam ak diw sàngam ak diw sàngam gis nañ ko ñu doon ñooñ xam ñu toog bañ julli tisbaar ñu ne weer wi ñu waxoon démb ne feeñu kat feeñ na su fekkente ne nag loolu amul gisuñu kenn ku ko gis fenn lu may dañ ñoo wax rek nañu tey la bis sàng tey la nangam bu boobaa nag gis gi ci la ñuy sukkandiku ci ndigalul sëriñ bi ndax sëriñ bi gis la ñu def loo wala ñu gisal ñu fenn ci biir réew mi su loolu amul nag dañuy jàpp rek la xam ne moom lañ jàppoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw loolu moom xam naa leneen lay doon liggéeyu koor gi niñ ko waajalee fas nañ ko yéene defee nañ ko daan defee incha allahu taala ci kanamu tuuti sëriñ bi dana yebal imaam sëriñ Fallou Mbacké moom sëriñ Abdoul Khadir jox ko ay kàddu yu mu ñëw ñu daje ci biir jumaa ji àndandoo fas yéene woor mu jox ñu kàddu yóbbal yi xam ne moom la ñu daan jox ci ay ndigal ñu fas ko yéenee jëfe naka noonu itam ñu xëyee li nga mboolem nu ñu daan dundalee koor gi ci ci jumaa ji fas nañu yéenee wéyal liggéey booba nañ ko daan defee fu ñu jullee takkusaan ba noppi danañu amal waxtaan diine wu am solo woo xam ne subaak jàmm mi ngi jëm ci koor ak nan lañ ko war a defee ak yan jeexit lay am ci dundug doomu adama bi bu soobee yàlla noonu lañ koy jàppee itam ba weer wi di jeex bis bu Euh, sëriñ Cheikhouna Mbacké moom sëriñ Mourtada moom sëriñ Fallou moo koy def suba euh, boo ñu noppee itam ndog yi nga xam ne moom lañ fi daan def danañu ko def naka noonu itam naafile yi itam day continuer di am na mu daan amee ñu di ko defee nañ ko daan defee ñuy sàkku nag ci ñi ñëw ñu ànd ko yar ànd ki teggin te xam ne fii barabu jaamu yàlla la waaye du barabu fawukaay du barabu coow du barabu leneen kon ku fi ñëw na bàyyi xel barab bi war ma yi nga xam ne moom la làmboo ba ci njëkk mooy néegu yàlla la ba ca topp mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg nekk kon ku fi ñëw na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax fas nañ yéene daal népp nuñ ko daan dundale dañ koy yokk waaye du su ko wàññi incha allah yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa